ku doon def ci kaw suuf si lu baax asamaan si di ko tiim muy def lu baax su ñu demee waxuma la nit ñi waaye asamaan ak suuf sax dañ koy jooy ndax loolu ñu ngi ko jëlee ci alquran fama bakat alayhim samaau wal ard am na ñu fi meloon safaan di defi safaan ci kaw suuf al asamaan tiim leen waaye bu ñu demee asamaan du leen jooy suuf du leen jooy kon safaan ba ña fi doon def lu baax it bu ñu demee asamaan da leen di jooy waaye suuf da leen di jooy sëriñ bi nag ne mi ngi jooy ñoo ñi nga xam ne jàlloon nañ tey gaa yu baax di yaakaar ci jooy yooyu nag yàlla may ko ngërëmam yàlla may ngërëm yàlla defal ko ngërëm ci jooy yooyu mu leen di jooy fàttalikoogu mu leen di fàttaliku sëriñ Basiru nag dolli ca wax ne hal yazunnu zannun in kaana yarju bi mujarradi l bukaa ridwan allahi taala wa fi wus'ihi an yaamala misla amalihim ndax kenn mën naa jortu ne jooyi kese rek bu nga xam jooy ronqañ la wala jooy xol la wala jooy làmmiñ la ndax loolu rek mënees sa cee yaakaar ngërëmal yàlla te yow mii jooy man ngaa roy ki ngay jooy ba def li mu mel ni lim defoon wala nga jege ko ndax loolu am na njëriñ ndax jooy yooyu moo tax ñuy wax mu ne déedéet xaashaahu sëñ bi jombante naag loolu jombante naag jooy ronqañ rek wala jooy wax rek waaye jooy roy lay def ca kam doon jooy bu melut ni moom dana raw ñu bari kon jooyu mel noonu moo am solo jooy yu mel noonu muy jur njariñ te la koy indi mooy da nga koy mën a roy da ngay mën a roy ci moom dara salaatu sitta bi matihi sitta taatihi batta ma atisaa i sëriñ bi ba muy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko tagg di fàttaliku jikko yu baax ya daf na la tax mu di ko def da koy def ba noppi nag ma atisaa i ànd ak di ko roy ànd ak di ko roy xad ramma qalbi bil iqtidaa i nee na li ko defar du dara lu dul roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon roy waaju baax la cay jariñ nit mooy fàttaliku ak dundam waaye la cay jëriñ nit mooy fàttaliku nga jural la ak roy goo xam ne dana tax nga jëf jëf yu nuroog yam daan jëf kon soxna si buñ ko dee fàttaliku li nu war rek mooy xam dundam ga jàngat ko jàngat moo xam ne danoon jural xam lam doon dundee ba am lim am loolu nag buñ ko doon bëgg a tënk ci ay baat day mel ni rek soxna si moom dundam gépp mi nga aju ci maarifatul waajib wal qiyaamu biha biha bihi xam waru garam doon ko def xam waru garam en tant jigéen xam waru garam en tant que doon ko def nam ware loolu rek moo doon ak dundam xam waru garam doon ko def waru garam woowee nag comme nit wala waru garam woowee comme jigéen addis bi moo ko tënk addis yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ko tënkal waru garu jigéen ida sallat almaratu xamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa ataat zawjaha daxalat aljannata min ayi baabin shaat wala xiila xiila laha udxila aljannata min ayi baabin shaa cheta cheta yonent bi sallallahu dafa tënk foofu warugaru jigéen warugaru jigéen ji ko yàlla teg togg ko ko mu ne ñi mbir yii ba ci jëkk mooy topp boroomam topp borom këram weer weeru kooram wattu boppam yooyu mooy yi nga xam ne moo ko war loolu moom mooy li nga xam ne mooy li war jigéen ju nekk yooyu bu ñu ko toppee dañuy gis ne ba ci jëkk mooy jaamu yàlla kon jigéen jaamu yàlla daf ko war ni mu waree góor sunu borom tabaraka wa taala moo wax ne ma xalaqtul insa wal jinna illa li yaabudun illa li yaabudun nee na bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma rek moo tax ma bind leen te nit ak junne boobu bi mu ko waxee nit foofu jigéen ak góor yëpp a dugg ci biir jigéen ak góor yëpp ñoo dugg ci biir daf leen daf leen a digal ñu jaamu ko te sellal jaamu ko wa maa umiru illa li yëpp la boole illa li yabudullaha muxlisina lahu diina xunafa wa yuqimu salaata wa yutu zakat wa zalika diinul qayima kon warugar wi njëkk a war nit moo xam góor la wala jigéen mooy jaamu yàlla te bañ koo bokkaaleeg dara bu ko jaamoo it lam cay am ci ak fay góor ak jigéen ñëpp a ko bokk bu jaamoo yàlla la muy am ci fay mooy la nga xam ne bu góor jaamoon yàlla it am ca fay gu mel noona wa man yaamal min alsaalihaati min dakarin aw untha wa huwa mumin fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun kon loolu wane na ne moo góor ñoo yam warugar woowu muy warugaru jaamu yàlla bu dee soxna jaara nag buñ xoolee warugar bokkoon na ci liñ ko xàmmee mooy taxawaay bu rafet bu mu taxawoon ci warugar woowu taxawaay bu mat sëkk Cheikh Mamadou Bachir waxaat na ko ci minanul baaxil xadim wa kaanat il walida jaratullah saalihatan afifatan dayinatan kathirat alsalati wa sawm wa sadaqa mustaslimatan li rabbiha qaimatan bi waajibatiha bi waajibaati diiniha na baynaha wa bayna rabbiha muy wax ju gàtt yoo xam ne dajal na lépp jëmm la joo xam ne ko amoon diin la jëmm la joo xam ne ku doon bari lu muy julli la ku doon bari lu muy woor la ku doon bari lu muy saraxe la ku doon ku jébbaloon boppam boroomam la warugar yi ko waroon digganteem ak boroom yépp daana ko taxawee nam ko ware kon ak jaamu yàlla moom mataloon na ko sëkk ci la ko yàlla toggoon ci wàllu jaamu yàlla moom la sëñ Musaa Ka di wax mus la julli te jàppul mus la julli te wirdul mus la julli te jàppul waaye mus la julli te wirdul kooku kon matale la ko boromam tegoon ci wàllu jaamu yàlla warugar wa ca tegu mooy topp ki ko yàlla booleel muy sëriñam mu topp ko toppiin wa gën a rafet ci lépp loo xam ne luy gërëm loo yàlla la mooy wa ataat zawjaha parce que bokk na ci warugaru jigéen muy topp borom këram ci lépp loo xam ne lu gërëm loo yàlla la fa saalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lil xaybi bi bi ma xafidallah yàlla ne nag jigéen ñu baax ñi dañuy doon ay jigéen ñoo xam ne dañuy topp seeni borom kër jigéen ñu baax ñi dañuy topp seeni borom kër dañuy wattu seen bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jigéen ju topp borom këram bu faatoo day daal di dugg àjjana ayum raat ayumam ra ayumam raatin daxal ah, maatat wa zawjuha radin anha daxalatil janna bépp jigéen boo xam ne génn na àdduna fekk boroom këram gërëm na ko day daal di dugg àjjana ci saasa su ma doon digal kenn mu sujootal kenn kon damay digal jigéen mu su borom këram ngir àq jure rëy ji nga xam ne am na ko ci moom kon loolu wane na ne topp borom kër day waru garu jigéen woo xam ne kenn mënu ko ko teggi lu dul mu def ko rek wala tarumi taata allahi bila taati zawjika taqiyi dil ola cheikh mamadul xadim nee na bul topp bul topp yàlla mukk bul sàpp sàkkoo topp yàlla yow jigéen ji mukk lu dul ne da nga caa boole di topp sa borom kër booy topp yàlla te doo topp sa borom kër yàlla du nangu sa topp kon topp yàlla gi sart bi mooy ngay topp sa borom kër bi nga xam ne bu ragal yàlla la fa xaysuma zawjun radi an zawjati radiya anha rabbuha min amati saa bu borom këram bu gërëmee rek yàlla gërëm saa bu gërëmee rek yàlla gërëm loolu nag ñu bare bari ci jigéen ñi léeg-léeg bu ñu koy wax dañuy wax ne borom kër bu ragal yàlla kat la wax waaye dëgg la moo ca gën de borom kër bu ragal yàlla te digalu la yow ngay def loola digalu la mooy yàlla ba léegi dañ laa digal rek nga topp ko yow toppin wa gën a rafet ca la neex yàlla lépp lu neex yàlla nga topp ko ca ndax loolu ñu ko jëlee ci atu imraatu firawna na ku yées rek moo la yées kenn mënu ko dab ci ak yées waaye ba mu amee jabar ju baax mu topp ci gannaawam di def la ko yàllay digal di def la ko yàlla bàyyi la ko yàllay tere waaye ànd ak boroom këram ànd bu rafet teewut mu am ci àjjana wa daraba allahu mathalan lilladina amanu imraata firawn is qaala is qaalat rabbi bni lii indaka baytan fi ljanna wa najjini min firawna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin loolu mu àndoon ak firawna ak lam doon yées lépp teewutoon mu doon wut ngërëmal yàlla ci ron borom këram boobee ndax du ko topp ci lenn lu luy mooy yàlla waaye lu koy gërëm loo nag ci seen diggante loolu da koy def te loola mën na ko may may na ko ajana kon topp googu dafa nekk lu am solo soxna jaara nag ñu xamoon ko ci loolu bu baax a baax ba mel ni loolu mooy adresse am saa bu ñuy waxtaan ci moom rek wàll googu mooy gën a feeñ sax geneen wàll gu mën a doon muy rafetal topp gum toppoon ka ko yàlla booleeloon kaanat qaimatan bi waajibaati diiniha baynaha wa bayna rabbiha wa fi bay fi ma baynaha wa bayna cheikh al imam da doon topp boroomam waaye da doon topp ki ko yàlla booleeloon gën jaa rafeti topp beneen ba ci des mooy kun xamoon la ci doxal warugaru jigéen ci yar njabootam ndax topp borom kër bi yaral ko ak njabootam ci niñ ko war a yaree ci diina da caa bokk yar doom yi ci niñ ko yar yarub diina bu rafet da caa bokk ndax loolu responsabilité bi góor jigéen la war waaye jigéen la gën a war ndax moo ca gën a jege moom la gën a jege moom la gën a euh, war borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wax na responsabilité yépp ku ne mu jox la sa bos ne wal maratu masu raayatun fi bayti zawjiha wa hiya masulatun an raayatiha jigéen ju ne ci sa biir kër yow yaa fay responsable ci biir kër ga yar njaboot ga toppatoo kër ga loolu sa warugar la te moom it doon na ko doxalee doxalin wu rafet woo xam ne ñëpp xam nañu loola ndax buñ gisee loolu mboolem li am ci àdduna bi ci ak yàqute ci wàllu gone yi ci jigéen ñi ak ci góor ñi yëpp la ko indi mooy waajur yoo xam ne dañoo démissionné ci seen i doom moo tax waykat ba day wax ne jirim dëgg-dëgg du ki ñàkk ndey baay waaye jirim mooy ko am ndey baay ju ko talul am ndey baay jox xam ne taluñu la loolu mooy mooy jirim dëgg-dëgg kon loolu mën naa wattandiku lool kon moom melo melo woowu melo woon na ko moom it sëriñ Basiru seeral ko ko wa kaanat turabbi awlaadaha ala almuruati wa diini wa tahaara wa kathiran ma ki alayhim xikaayata alsaalihin ka qiyaami lleyl so na soxna jaara doon yar ak njabootam yar bu baax a baax a baax yarub diine boo xam ne day am kerse am diine laab di leen nettali di leen nettali bu guddi jotee mu leen di nettali xibaaru gaay yu baax yi fi newoon ba am li ñu am mu leen di nettali nañ meloon ngir ñu di ko ma meloo wax nañu sëriñ bi ci boppam jamono yooyu nga xam ne sax ak saa saayir amagut ci moom waaye nettali yooyu mu daan dégg dafa daan tax mu naan gaa yu baax yi dañuy taxaw guddi gaay yu baax yi dañuy taxaw guddi moom xamagut luy loolu bu guddee day taxaw ba bët set moom ngir ngir bëgg a roy ñooña teel leen a bëgg day taxaw ba bët set kon moom nam mel dafa mel ni dafa yàgg ci moom lool daanaka rek daf ko daf koo ñëwaale alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakada nujabaaw gaa yu baax yépp lu baax dañ koy teel a tàmm day mel ni dañ leen koo mooñaale dañuy ñëw rek indaale ko kon di yar sa njaboot it bokk na ci liñ ko li nga xam ne moom la ñuy royee soxna soxna su tedd kon jikko yu mel noonu wattu boppam am kersa amug wegu ci lépp loo xam ne luy nuru lu neexul yàlla la loola it dañ ko ca xàmme moon lool wa qul lil muminaati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfasna furujahunna wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha loolu it xamoon nañ ko ci fegugul fegugu mat sëkk ci jëmmam fegu mat sëkk ci léppam ba kenn du ko gàkkal ci dara loo xam ne luy war a gàkkal jigéen la loolu it nee na kaanat saalihatan afifa wa kaanat saalihatan afifa nee na ku baax la woon waaye ku sàmm la woon ku jomb la woon ku am lu mu doon jomb lay doon kon jikko yooyu nga xam ne yu tuuti la ci mën a jëlee ci moom waaye moo yee ci gën am solo saa bu fàttaliku bi ñëwee dañuy xam ne loolu mooy ay melom loolu mooy ay jikkoom yi ko may li am ci xoli jullit yi mu am ko ci jikko yu mel noonu moo ko am moo ko may kon suñ bëggee jariñu ci fàttaliku gi ñu koy fàttaliku saa bu fàttaliku bi ñëwee dañuy teewlu jikko yooyu teewlu ca loo xam ne danañ ca mën a niitu ba yar ca sunuy njaboot sunuy doom sunuy soxna waaye sunuy mag ak sunuy rakk ak képp koo xam ne responsabilité yar ko mi ngi ci sunuy loxo jëmmi jigéen ñi ñoom ñoo war a roy soxna si waaye góor ñi nag ñoo a ñoo war a yar jigéen ñi ci roy ko ci jamono yoo xam ne jamono yu teel lay doon ba buñ màggee seen i cër tàmm ko ba roy ko nekk lu yomb ci ñoom ar rijaalu qawwaamuuna ala nisa jigéen ñi ñoo ilif góor ñi ñoo ilif jigéen ñi kon ñoo war a taxawee taxawaay boobu yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku yàlla dimbule may la ñetti doom yu jigéen nga yar leen jàngal leen defal def ci ñoom la nga war a def ci ñoom nee na bu yowmal xiyaamee moo ñooy doon sa sitra ñooy doon sa saatir ci sawara ñooy dox sa digganteeg sawara ñetti doom yu jigéen nga jàngal leen yar leen jaarale leen fa nga leen war a jaarale ba joxe leen kër wala nga dem ko ci leen fa nee na sunu borom tabaraka wa taala dana dox sa digganteeg sawara ngir ñooñu kon loolu ay mbir la yoo xam ne war nañ koo dégg saa bu fàttaliku bi ñëwee ñu bañ koo yemale ci rek ay ixtifaalaat bañ koo yemale ci rek ay raay dara wala ay naan dara waaye loola la li ca ëpp solo mooy dem nag teewlu nam meloon teewlu nam doon waxee teewlu nam doon doxee teewlu nam doon jëfee teewlu nam àndoon ak ñam àndaloon rafetal gam ko rafetal nga teewlu ko ba boo ñëwee mën caa roy roy ca royloo ca sa njaboot bañ jëriñu ca loolu mooy la am njëriñ yàlla na dimbale ba nga xam ne suñ ca demee buñ dikkee mu mën ñoo jëriñ dara wa najjini wa jami al muslimina maan wa najji walidati amina yallahu waxfir lana wa laha wastur lana wastur maaibana waltuf bina wa biha fi lxawli yallahu anha tajawas wa iya arhaman fama laha siwaaka wa anta albarru yallahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu مالك الملك يا من جلاله